إله إلا Thank

غرور لا إله إلا la لا dinaa ko dagg balaa Mouhamed Ndaw di jël fa haasihi salaamun bi Baye Niass lay tag Baye Niass lay woy boo ko dégloo dëgg-dëgg loolu mooy jëmmi Maulana Cheikh Ibrahim bu fa bàyyeekoo dina tagg Cheikh Mouhamadul Haadi ba mbaar mi yëngu ragal naa tey asamaan ak suuf dana tappaloo lii ma fukki junni la deux cent mille sëriñ bi moo ko jox zikarkat yi bëgg nag suñuy woy Baye Niass bu dee bëgg nañ Baye Niass dëgg la te bëgg nag ñaar rek koy firndeel mooy xitma ak génne alal joxe bàyyi lim ñu defal lépp suñ ndey defaluñ ñu ko suñ bàyyi defaluñ ñu ko waaye waaye loolu bu mu yem ci suñu làmmeñ yi na dëgg ci ñun ñii fuñ ñuy yóbbu bu dul woon ñoom duñ fa dem kon nag buñ toogee di def nii am na ñoo xam ne ñu ngi jox seen sikarkat yi loo xam ne seen sikarkat yi yóbbuwu leen fu ñuy ñii di yóbbu waaye ñi nga xam ne ñoo ñuy yóbbu ba dem ñu lay laaj ana nga amoo ñu lay laaj ana sa baay amut ana sa yaay amut lenn amut jëmm yàlla ji rek moo am te muy lu wér ci yow ñoom ñoo ñu fay yóbbu lii ñeen fukki junni la sëriñ bu waroon a toog xaar ñu ñëw yëkkati àddiyee jox ko ne nañ leen teral kon nag nee na moom ku bëgg bàyyi ñes muy dëgg ci yow bu ñuy woy bàyyi fahaasi salaamun nag ñëw àddiyee ñu jox ko si karkat yi buy tagg Mawlana Cheikh Mouhamadul Haadi nag borom mbaar mi borom gàmmu gi borom baatu urus bi bëgguma kenn toog képp koo xam ne ñëw nga fii tey te bëgg sa biir yëpp baax du làmmeñ bii moo koy wax nag am na ko joxe fukki junni mu ngi koy indi képp koo xam ne du bi yoo koy wax nag newul pël bii doo moo taxaw di wax de dafa am luy wax ci moom muy wax ku gëm li muy wax na nga ñëw ku ko gëmul nag toogal waaw benn policière bu tudd soxna joxe fukki junni insha allahu yow moom xaw ma kan inna lasina qadamani da nga dégg yow moom da nga dégg yow moom da nga dégg capitaine da dégg Sénégal fii laa la ko waxee ci keppaaru Cheikh Mouhamadul Hadi borom du problème kii mooy taawam moom mooy noo ko bëggee te ni nga ko bëggee mooy dem ba doon général lii deux cent mille la Mouhamad sëriñ bi moo leen ko jox te di oo képp ku fi toog nag da nga kii li mu wax inna lazina qadamu ni naaru mura te a danañ am de am nañ seen càkkutéef ba pare kon nag moom bi miskaaw damay wëlbati boolem wayee bi sa a وساهر سماوات فجر سيطان ثم قادر بفروتا من بحر فجر ay way ki jara way ko ñu tuuse ay leer ay ki wel bi ci lislaam ma ko doon ma wéy na te kañ la yaa sirru gebel bi galam do ci diinal islam soppe bee la ko jox mooy yoo ci taddim pour bu jaami wa ñas laa di jante jondoor saxal ka fi ay leer tax ci bori doy waar ngi may yalwaan yow mi ko metti jaan no da may masaami ba tam xol ma dee ci liimaan no fu guule metti gal ñu ndax ci weekoor raf la nal xëbbi ñëwoon kam ñu maali ñooy kaar sam wallu gën a gaaw xobbu fàttu bay buur fekki wël gën a baax wan ba mel ni aw niir sa xattee a ولا وهم كنت الجنان فيكون فقر بايد الانفاس والمدكر فقوم للبوغر فرد دمجي دمتر ونائك تفلل سولر يتفلق بسران كنت قبل ردن يا كساد أخرى كما شفت لوي ما تروا كسيماسي لتحمد لوي ماني بمبرم فاس سبوي daawuda booti ka dekkal toxon na heesa kuy murit na ma ñaw way na seydi baraham kuy murit na ma ñaw way na seydi baraham waaju kam ma na ràññee ta soppu baraham mu jammal qaatir maamu may ma sawtoon may ma fawmoon kuy murit na ma ñëw way na Seydina tabaawal man kel baamu may ma fooma kon danaa mën a way kii fi gën ci soobaana na ko kuróoy naa ne kii yi diiwaana dëgg la ba ma delluwaati kam ki gën fii ca asal la ko pour tiita lépp wër fee magaroon de ba say bëgëm fees waa waral mi la doon taw ba seeni ma fees xaalam ak xalalam moom la caay ci lislaam pour signal ko mu yor da ko kon mu fay na su dem xamoon ak may saa yu nekk nga teew su dem xamoon ak may saa yu nekk nga teew ba jëli kaar ba ñetti nga tamit sa ko waaw kañaan dafa تبدي فين قربا ما تبدي جسمك وجهنا من غابا وصل جكر ما يبر زلزلا ناس وصل جكر ما يبر زلزلا ناس وصل جكر ما يبر زلزلا ممكن أمدن وبمد أمدا سفك دايم بولد أكرما أم يرد تحت نزل بصورا daaw te raw na kuy maasam ne xam yow daaw am yore xarfu toola sam daaw ba jor ay masalaam toola kamba toonaam si rub nga dal dina laam ko raw li ci ay noon yaay kub yaay xaw si yaay saydi wi jaala tuuti bu rëy nit gàmbulu jaala te mi rasoon la yor ba di boobu ci maa

dëggal ku rëy fa la doy loo te dem fekkoona faalexul adduna fii ci biir dafay biir tey joxoon la way yàlla am na fi daan mos la am ku ne yam ci alal bane sooy te am kon du ko dem la xawal ay waay kon taxul ay kon tuubu mooy day doon rabbul samaawaati wal ardi bay na ko jeex yàlla tabee si dugub laa te toolam ko du koy moo di yéex di jox ko itam jafoo gën a sir kay na maa ya koy door ay karaama yaa gën a for doo si koy fay door ay mutum dama for mel ni jaadi sama rahmatan gën a xiir ci faqir miskin sa kuuli nga sunu ruu ya sa yoo fa sëriñ ni ñoo mi ka ko baal jàpp sa danga salima lay bàqante ay waaw war na jëm ay càkkam te toogu say waaw rabbul jëli la ko fal soog na torobaan فانت موي فريدا مغفور لك فلتكن أمة ولا وغفله وحوجي ديك المتن إلهي نازل من يرسم آجو في المدينة أجمع بجبنا بابود فجران xol ya bañ dama ko bàyyi ko bind lépp loo koy proposé la la moom melaw Yuusufa la jël teerawam fa cay taar ba ku janoom sopp ga ndax fa yor leer alxaaji suñu maam ganna wax na mooy taar ba moom ngay xool naw li yee de si maas lantam li ba taxat naaru bañ ko joxoon dama xam fa yee bàyyi fii ci soodaan yokku dar موسى فمعه حيا نسير ما يريد رب ابن محيا كل المجد الرسول إله الأبرار صلاة وتسليما من أنفار أتدي ما يلوي صادقات جهاد تكرس في نام وإمام محبار فمن قد مساوي بيتين في أجهار دنو دم دم تبو دجل قدم زام لخطا يشرق الإمام عجائب يكساك وصيرنا لبدان الحمد لله كي حي شرايك أرض بالكيب نموي معينا لايك ليه بيتاك توجه أي جفم borom ñaari baskil yi moom da suñ borom fu mu fi tegee ngay foog ne fuuf la ëppalee gën a yëpp a ci moom kër bu naqar njëkkee fi yow digal xam ne neex a gi bu neex njëkkee pare la muñ te am na foog naqar wi ñëw ma ne yàlla bu ñuy misaal mayam waaye su fekkee gi te la yor peer ak peer la koy joxe parce que bu ne ngoram kawaay ñi xam ne per lu sedda la ma ne toog ci kër moo ñu xamal naaj wi xeexu leen ma ne dëjëg ngénte fi nekk waay bu dëj xamut ngénte du xam ngénte gu ne fa muy mujjee ab dëj la jaam ñi xeexu leen ma ne dëjëg ngénte fi nekk waay bu dëj xamut ngénte du xam ngénte gu ne fa muy mujjee ak fit nag am yeewu leen ma ne ni ñoo xamee niw yi da jooy ko xamee woon liir ñun mbir mi danañ ko teg ci yoon yàlla bindul ñu fo police yi seeni convoqué am na yu caay fuuse du piir convocation bu mag ba daal yàlla ko yar du fuuse moom walaay adduna bi kan lañ fi waay fi nag dañuy ñibbi xalaataraay kër ak dëgg nañu ëppalante jëm ci ñun waay waay ku nekk bisam kër bu jotee muñal ma mbaa pareegu ma diw laa de xaar xamut ca du fuuse moom desaan etaas ku dee xut ko ca kaw bu dee dañëw ñu wàcc delloo ñu fiñ baxoo duniyaa ma tuxut na daf xarit ma ne kantin xëyoon gis ko fi ñun mu doon wéttali xol yi yëpp ba saan tàggu na leen jamaale naa waaye haadi bàyyi wéttali nañu waa ji xamul kër ak njaboot juruñ ko te jurut fii moo sañ a yóbbu haadi bàyyi te duñ ko xàq dal ko wam laay fekkoon fa xam kër njaboot mbaa ñu jur ko walla mu kon bim jëlee xaaji fi ñun danañ ko xakkalaat ko ko wallaay mooy corrigé suñ jëf waay te ay jëfam ko laaj kuukoo de buur te ki sañ moo sañ a jël ci ñun wallaay bu doon ci li ñu neex konoon xaaji du jóg fi ñun waaye la ko neex ca lay jëfee moo de baram maa tayi ki walaay yaay Fatima Zahra mu bàyyi sikil ma papa haaji bàyyi saraka ji moo daan rëkk moo ni lislaam di dem na waayi haaji rëkkam moo mos la mooy xuus ak durwaat la daan demee gox bu haaji jublu bilaayi diina lislaam di xam fi dam wallaay alaaji daam yàgg say rakka jaale naa leen seen doomi baay bay kat la woon waaye haadi baay waaram wa na booyalul ma ne ku di julit maa kaale mbaa nga di soppe walla doom sikil ma haadi mi sikil mi dina sàmm dem ca kaw wallaay jàmbaari fay du dem na waa wallaahi xaadi jam-jam taxut mu daw ay que fit wa tiitu doon ku dul borom bi ndeefi moom saahiram ba baayo ko jur baatin ba baayo doon bayam doomi gaynde la xam fi ñun ku fonk diina xaadi bàyyi mu gën a yaatu xar ci yow ku dee jullit ba dem haaji tay tur na doon sa jaam lépp loo soxla wax ko ko taxaw na pour nga jot ca yow xàmmeehu doon góor ak jigéen mag ak a doon haaji xattan na loo ko te ndom la ruloo ca ab julit bu dee xalal nga soxla mbaa ye pas ba dem ci haaji baay bu ko xamee jox la ko bu nekk soxla desal borom kuy mëta réer nga soxla dem ci xaadi moom dalay xabal mbaa mu xabal la jox la paas wala isax nga yóbbu ko ab problème lu mën a xam nga wax ko xaadi baay danaan demal nga toog du problème da koy réglé te doo ko yëg wallaay kuñ mës a tëj fu mu ko yëgee composé na ci téléphone ñaan ñi ko bopp ñu bàyyi ko suñu wàllukat ba dem na waxoon suñ tan xam lu nekku doon mbiram jaam ñi xam ngeen na aadi taala beeg ma xem ci moom léegi gan ñaa ngi biir këram kër xaaji mos la ñàkk gan bu ñii da dem ñii xa ngi ñëw ngay jooram ba du daan taxaw loxoom ba daaw na duy taxaw ku ñëw mu may la walla muy yóbbante naan joxal ma diw nam mu naa ko waaji na ñëw kuy maye may yóbbante may ci xaaji baay daan wër na biir këram te mas la làqu man na moom haa di du dàq nga këram boo ko ganee ba tàggatoo mu lu kër ga fees kikam xar kanam ba day gën nga yaatu gan nga ñuuxu ci haa di bàyyi jaboot la ko dehul mu def la buur ca biir këram lekk ki naan yëgg na for alaaji haabi sol la ko ku gëm yàlla te gëm sa bis ku mujj ngay teral sa gan nappi naa moo ñu wax alaaji haabi def na ko hadiya joo ko mën ta jox bërim nga moo ko mën baayo ko jur tàggat ko moom baay nin fi daan joxe li roy nga tali ma wax faqiir na fi miskin yi daan fi dem këram duñ weddi lii ma wax ci moom baleen ragal bu dëgg wax leen ma noppi xam fi man miskin du gàntu ngaana yi lafañ yi ci nañ ci moom fay ma xëyee ma kër sa moom sàq ma dem na xaadi laay bëri na kër bu daan jëkkaa xañ waa këram te fekk na dépasse ba moo ko def ay këri kër la duñ ko lim borom dépasse bu yaatu ba mooy xaadi baay jamaale nam yal na ko yàlla huuti ci ñim yàlla xel ba kenn du xiif bëri na gerte boo fi dem gannaaw borom te fekk na xaadi fa yulli pos ba waaye buñ ko waxut ko ci xam xoolal pharmacien yi lim ci dugal ordonnance bu doxaan borom ko yëgee kenn na ko moom lii naam la moo di ñëpp wér feebar bu dul bu am naas ba koy jëral mu jàpp jël kuus nga ñàkk haa di bàyyi borom li jaama dem na waayi sëriñ na waay yëgut ko woon taala dem na moom la fi salul sonnal tam taala ba yi ku sonn na ñëw mu xettali kaamil kurus ak mbaxana ay kompaleet da koy joxe na muy joxe xaalis a taxa xamul état ci dund bi waay xamul état ci dund bi waay man jot naa ne xar kanam état si xaabi ñas ca kaw daa yóbbu njort loola tas wax ci téléphone ñi daan ko soxla nit bëree ku soxla oo xaabi mu dem waaye ñi xaxoo ka dem waay xaabi xoyofu ko moo taxoon na ku mu kalaan ca biir këram na dalay kafe te doo ca mer bés bu guddoon ku koy ragal kenn du dégg jamaana tey ba mel ne xaati naa ci ñun ñun daan naxee ndaw yi di xaw ci yoonu ñu nga jër ko kooka tiitu ci ab koye nalaay naxee nga jublu yàlla jaamu ko ndaw ku jub yàlla jaamu ko xaq qadrihi wa miqdaarihi